bismillah arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa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 ñooy nuyu soppe almisbaax yi di beral nuyoo sëriñ daara yi di nuyu itam waa daara ji yëpp mboolem ñi nga xam ne waxtu wii def nañ ko seen waxtu wéttal waxtu wu ñuy ànd ak ñun ci jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu démb biñ koy yëkkati suñu jotaay ñi ngi doon waxtaane lu jëm ci dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam gatandoo ko weer wi nga xam ne mooy weeru gàmm waaye ni ma ko waxee woon mu nekk occasion ci ñu jàngataat dundam gi sallallahu alayhi wa daan naa faral di wax ne suñu réew mi ci wàllu gàmmu jàngal nañu lu bari ci dundam gu tedd googu nga xam ne loo ci tàmbulee wax boo soxlawut am njàng mooy tudd waaye bari waa na ñoo xamante ne yàgg nañoo dégg ñu nettali leen ko <coughs> li ci def kay mooy mu jege ñu rek bañ yëg ne suñu borom subxanahu wa taala daf ñu ko royloo loolu laa doon laytaayu jotaay bi démb ma agsi woon ci yónni gi nga xam ne moom la ko suñu borom subxanahu wa taala yónni waxoon la aw turam waaye limal la ay maamam ndax léeg loolu am léeg-léegi daf nga dégg ñu lim maami yonent bi alayhi salaatu wa salaam limu maam yooyu su fekkee am na lu taxawee ba nit ki man ko cee jànge mooy aw askan dafa am solo ci nit aw askan dafa am solo ci nit ñun bokk na ci li nga xam ne suñuy mbir la yoo xam ne ñi ko amut léeg ñu ëppale leen ko tam amal ñu njariñ mooy ñun li ñu tuddee famille famille boo demee ci eh, yeneen i réew ak yeneen i civilisation léeg ñu xatal ko lool boo ñëwee ci ñun léeg nga gis ñu yaatal ko lool nga xam ne léeg nga naan kii sama askan la waaye buñ la laajee lu ngeen bokk nga naan suñu ñaari maam yi ñoo bokk nangam diw ak diw diw ñoo bokk nangam nga xam ne danga koy ñoddee ñoddi ba mu jege si loolu dafay amoon ñu fonk ko lool ñu fonk ko lool daan na tax nit am lu muy jomba def ci biir askan wi mu bokk ndax bi set être ñu nettali ko njàmbaar gu ca xewoon te yow da ngay dund tey waaye dañ lay nettali ëllëg ñun ñii ñëpp suñu jaar-jaar yi ñu fi jaar jamono dana ko nettaliwaat ñiy ñëw jamono dana ko nettaliwaat ñiy ñëw ki daan yare nag aka moytandikuloo nit da koy moytandikuloo ñi nettali naan ko moytu la mel ni diw wala diwoo fi defoon nangam réew mi li tax nettali fi histoire xaw a jafe sax loolu la bokk ndax ñun dañoo jàpp ne ñëwoon démb ñëpp a baax te loolu mësta am daa amoon ñu jàmbaare ak ñoo xamante ne bari nañ lool ay njuumte yuñ def yal na yàlla jéggal leen ko am ñoo xam ne it loolaa xewoon ca jamono ñun tey lañ ko tudde ay njuumte waaye booba aw tàgg woon tey lañ koy tudde ay njuumte waaye booba tàgg woon gis naa bi ñuy bind histoire u Sénégal ñoom professeur Iba Der Thiam yal na ko yàlla yokk yërmande te jéggal ko léeg-léeg laal fenn rek am mbooloo jóg ba tey nettalikatu taarix yi am na ci yoo xam ne duñ ko nettali mukk waaye nag adduna noonu la mas demee ndax bu ñuy nettali démb ngir ñu man cee jànge rek a tax waaye lépp lu nar a indi fitna bàyyi ko faa gën lépp loo xam ne it day indi eh, ay ñëgg-ñëgg bàyyi ko faa gën waaye jéem a góorgóorlu ba bokk ci ñuy góorgóorlu daal am na solo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom nal ko askan wi mu feeñ ndax bañ ñu xase ko askan te mën naa am yoonam nekku ci léeg-léeg nga koo xamante ne baax na lool góorgóorlu lool waaye am mbokk yu teguwut ci yoon léeg-léeg mën naa tax sax du nekk à l'aise mën naa tax ñu boole koog ñoom ci benn saaku te fekk moom moytu na ba sonn borom bi nag mooy tànn maami yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàmbalee ko ca maamam ji tudd Adnaan ba agsi ci maamam ji nga xam ne moo ci moom di Abdul Muttalib ñoom ñëpp jamono jañ jamonoon teeloon ca ñañ ca daan tagg la bokk lañ bokk ca la fa tagg ca pénc ma ci taxawaayu rafet ci jom ak ngor waaye taxut borom bi def ci ñoom risaala gi taxut mu tànn leen taxut mu yónni leen ñoom ñii ñëpp it amoon nañu doom ami njaboot Abdul Muttalib amoon na yeneen doom yu dud Abdallah ñooña ña nga woon ca dëkk ba di dund waaye borom bi subxanahu wa taala la soob mu tànn yonent yàlla Muhammad allahu alamu xaytu yajaalu risalatahu suñ boroom mooy ki xam fan lay def li nga xam ne mooy euh, risalaam bi muy sekkareem bi muy yónnent bi nga xam ne moom lay yónni euh, te ñooñee mu yónni ñu leen di tudde ay yónnent moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam net lil ñu boppam maamam yi boo demee ca xadis ba nga xam ne ma ngi ci sayxul Buxaari day wax ne inna allaha stafa kinaanata min waladi ismaila wastafa xurayshan min kinaanata wastafa min xurayshin bani haashim wastafaani min bani haashim nee na suñ borom day moo tànn ki nga xam ne mooy kinaana kenn la ci maamam ñi xusaymaa mu bokk ci doomi ismaila yi nee na moo tànn itam xurayshin génnee leen ci kinaana daan may tànn nag man génnee waaye mu tànn eh, bani haasim bani haashim ci biir xurayshin daan may tànn man ci bani haasim moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na beneen xadis beneen riwaaya boo xam ne day wax ne bu'istu min xayri quruuni bani aadama xarnan fa xarnan xatta kuntu min al xarni allati kuntu fiihi waaw nee na suñ borom eh, siècle bu ne jamono ju ne day am ñum cay tànn maanaam jamono ja day gënante waaye nag mu tànn ko ci jamono ju gën ji tànn ko ci askan wu gën wi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu am na solo waaye léeg-léeg ma wax ne nit da du tànnal boppam ay mbokkam waaye dañ ko koy tànnal doom ju ne dañ koy tànnal yaay léeg doom màgg gis ndayam ci penc mi bu sañoon kii du ko jur am na ñoo xam ne seen yaay yi ñu am bu tey doon démb ñuy sensé yaay pare nañ pour sensé yaay ndax ñoom euh, li ñu xam ci ak mbaax ak liñ jéem a xeeñcu ak la seen way jur yooya nekk comme yàlla ak yelli waaye nag mënu ci dara baayam moo ko tànnal yaay ji am ñoo xam ne léeg bët boobu la xool seen baay waaye mënuñ ci dara moo tax suñ borom du jàppee nit ci ni mu juddoo waaye ñu ko jur lay laaj lu tax ngeen jure ko nii du jàppee nit ki ne ko lu tax nga juddoo nii ndax amoo ci choix fi nga bokk nii famille bi nga bokk askan wi nga bokk yow defoo dara ngir bokk ci dañ la caa boole rek nga bokk ca moo tax ki jàpp ne daa bokk ci askan wi kon maa gën ki bokkut ci askan wi li nga ko gëne kon yow fàgguwoo ko moom it li nga jàpp ne moo ko tax a suufee du ak yaafuusam waaw du ak yaafuusam la ngeen di la ngeen di rawantee di ca gënantee loola nag seen kër-kër yi bopp la war a doon maanaam effort la yu nit ñi war a def waaye borom bi subhaanahu wa taala fonk na delluwaay boobu moo tax mu tànnal yonent bi alayhi salaatu wasalaam famille bu baax bii ba noppi bind ko nag bind bu mat moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam amut cër bu manqué ci moom ci bindam woykat ba nee na ko dangaa mel ne koo xam ne dangaa bind sa bopp rek maanaam Euh, bin maanaam yett sa bopp ni la neexee ndax léeg-léeg gis koo xam day taxaw ci kanam seetu bi di seetu waaye bakkanam bi moo yàq kanamam gi waaw bakkan bi moo ñaaw léeg mu xaw ko nosal wala mu nooxal ko am koo xam ne lex yee xaw a magu jën nga xam ne mën na koy muucu di ko dugal ndax bëgg lex yi dugg <laughs> nañ ma baal am koo xam ne bëtam day xulleeku sax ndeysaan buy fotowu ndax bëgg am bët moom bu sañoon noonu lay mel waykat ba nag neen a yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa mel ne moo binde boppam noonu noonu yi ko neexee nga xam ne moo defee noonu boppam nga xam ne lenn lu ne la ca gën noonu la ko borom bi subxanahu wa taala binde noona ña koy melal melal nañ ko melal nañ ko moom la sëñ Moussa Ka doon wax waaw bëñ ya weex tàll am na fu mu ko naan bët ya ne boq per bay saf nenu baa wax yu rëy waaye yàlla na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax taar baa tol noonu. melokaan woowu nga xam ne borom bee ko noonu ak jagle la ca taar ba ca cet ga waaye ca teey ga ca xet gu neex ga mu amaat weneen melo woo xam ne mooy melokaanu jikko melokaanu jikko jikko it yonent bee ko gën gën le ñëpp moo tax Sëñ Tuubaa waxoon ko ne ko wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan sahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi seemi wa innaka la ala xuluqin azim la ko yàlla wax kon mooy ki gën li mooy ki gën a mat jikko mooy ki ko gën a kawele jikko yu màgg yaa ngi ci yow sayyidatuna Aïcha radiyallahu anhu fedd li ñu jikko jooju ne ñu kaana xuluquhul qur'an yonent bi alayhi salaatu wasalaam day ay jikkoom moo nekkoon alquranul karim téere bu màgg boobu nga xam ne du ay lépp du ay théâtre du wax ju du dëgg waaye wax ju wér la bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala mu wàccee ko di ko aaral boppam ku nara tedd mooy ca di ko teral jaara ca tedd ba faaw ku nar ku nar a torox desal ko ginnaaw jaara ca torox ba mel ni ña ko doon jéem toroxal ak a fent luy nuroog alquran ba faaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam jikkoom ya ci wàllu rafetaay kenn mënta xam nu mu mel maanaam ni jëmm ji rafete noonu la jikko yi rafete loolu mat naa bàyyi xel di am na koo xamante ne mën naa góorgóorlu ci sol col gu rafet mën naa góorgóorlu ci takk takkaay yi gën a seer bu dee jigéen waaye bu waxee nga xeeb ko bu jëfee nga xeeb ko ndax jikko yaa defaruwut maanaam takkaay yi feeñut yooyu la waajalut te yi génn ci biti yi ci biir da koo war a gën ndax or li muy am am am dara euh, daraja li muy am am dayo boo jëloon tey am mbaam takkal ko or walla euh, am muus wala mbaam xuux du te moom mbaam xuux rek lay doon du tee mbaam xuux rek doon or lay des di doon or du ñàkk maanaa de waaye ki ko takk moom or yokk ko dara or yokk ko dara kon kaw geeg liy feeñ baax na waaye jikko jikko ci misaal donte mbaam xuux defu dara ba doon mbaam xuux ak muus waaye jikko ju baax ak defaru loolu lañ bëgg mu nekk li nga xam ne moom mooy li gën a mooy li gën a wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag boole woon ñaar yooyu yëpp tax bu ñuy jàngat dundam gi jël jikkoom yi jël jikko ju mel ne woyof woyofam googu da ko boole woon ak am personnalité xam nga ñun ci réew mi dañ naan diw woyof waaye boo demee ba àgg ku ñàkk fayda lay doon ku ñàkk fayda koo xam ne oyofam gi tax na bu xale yi doon petit bu rombee bu ñëwee sur place sax danaan garaawut ba noppi songale bal bi di tëlëka aka football nga xam ne moom mi ngi woon xale yi ni leen jërul ngeen di wormaal mag loolu jëru ko oyofam gi tax na mën nañ koo tàcc muy fecc ne ci ëtt bi ne ci digg jeeg gi di wax lu ñor lu ñorut waaye ñu ne diw daa oyof moo tax muy def loolu woyof na lool moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci nangu dëgg woyof na lool ci fexe ba julli di ñeme ko waaye nag mu am xëy ba lool am personnalité amub dayoo lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam day bari woon na kersa lool waaye boole woon na ko nag doon jàmbaar lool ndax léeg-léeg bari kersa waaye kersa gi da ko yóbbu ci mu yambare am na ñoo xam ne lim tuddee kersa amuñu kersa waaye dañoo yambare yambare yambare ba doo jël benn position waaye tudde ko damaa bari kersa nga xam ne yóbbu na la ci doo waxkatu dëgg tuddee ko bari kersa yóbbu na la ci di maslaa foo warul woon a maslaaye tuddee ko bari kersa loolu dalul woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari woon na kersa ci am lu muy jomb waaye nag mu boole ko geneen jikko ca wet ga muy jikkoy njàmbaar ñeenti jikkoo ngi ni yoo xam ne bu ci dikk rek morom ji daa war a ñëw ne ci wet gi ndax buñ àndul rek faiblesse lay doon ci nit ki woyof day ànd am personalité waaye am kersa day ànd ak njàmbaar am kersa day ànd ak jeneen jikko yi ci jikkoom yu rafet yooyu mooy doon koo xam ne ku tedd woon ku dëggu la woon ku dëggu la woon moom yonent bi dëggu lool waaye sori lool li nga xam ne mooy bëgg siiw waaw maanaam ni mu mënoon a defee ay teraanga ni mu dëggoo woon ci ay waxtaan noonu la nekkee woon koo xam ne àdduna yitteelu ko àdduna yitteewu yitteewu ko ndax yombut dëggu ci ay wax dëggu ci ay jëf ba noppi dëddu àdduna bañ koo jublu bañ a yoqamtiku jëm ci loo xam ne koom-koomu àdduna la loolu bokk na ci yi nga xam ne boole ko yombut yonent bi alayhi salaatu wasalaam day ku fecceeku woon aw làmmiñ la olof di ko wax dogug la daanul wax ba noppi ñu naan lu mu wax waaw léeg-léeg euh, bu nit ñàkkee am kàddu gu leer ne ñun bu waxee benn baat da koy baamu ay yoon nga door koo dégg wala lu mu bëgg a wax waaye yow kii lu muy wax yonent bi loolu kenn du ko wax dafa amoon li nga xam ne moom la wax fasaxatu lisaan da koo amoon waaye nag am xol bu dal ndax borom làmmiñ wu setit nga xam ne lu mu wax ñëpp xam ko muy wax wax ju bari te leer te amul xol bu dël maanaam ci ay toj-toj lay dëkk ndax li muy wax day wuuteeg lu muy gëm waaye li muy wax it tiitaange day tax du ko mën a wax am yu muy ragal ak yu muy moytu day tax du ko mën a wax moo tax yooyu la boole woon yonent bi alayhi salaatu salaam ci jikkoom yooyu mu boole woon ci am xel mu dëgër maanaam am xel xel xel mu xel mu yaatu moo xamante ne yaatuwaay ba jéggi na dayo te am xel la ñu nawee waaye mu boole woon ce nag rafetuk rafetuk dégg rafetuk nu muy comprendre yëf yi ni muy interpréter yëf yi mbir mu ñëw rek li ci gën a rafet moom la yonent bi di xool ndax boroom xel mu rëy ba noppi te du xool lu baax ci mbir kooku musiba day am ndax lu ñëw rek anam gu baaxut la koy gisee am na ci nit ñi ñoo xam ne mënoo def jàmm ci ñoom wala nga wax ko ndax lu ñëw rek waaw boo boo ko ne woon namm naa la sax mun la ah danga may door a nam ma yow de yaa ngi ma koy door a wax waaw bëggoon naa laa woo waaye damaa jàpp nga na ah, moom kay la nga jàppoon a tax woo ma ba léegi maanaam munoo wax jàmm moom léeg am ñoo xam ne laa ilaha illallah loo wax rek musiba mbaa kumba lay doon waaw xel mi wër ko xel mi xel mi wër ko xamante ni lu ne lu ne da koy xalaat lu ne lu ne léeg-léeg ñi ñëw ci ñun dañuy jàmbat lii am ci biir sëy yi ak jafe-jafe yi léeg loolu am léeg am soxna soo xam ne xel mi da ko wër looloo lool loolu dong ko xañ jàmm di ci néegu sëyam bi xel mi xel mu rëy rek xel mu rëy rek moom euh, moom daal doy na waar daal <laughs> doy na waar daal lépp kenn mënu koo wax waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam xel mi dëgëru xel mi xuwatul aqli gi mu amoon da ko caa boole woon na xusnul fahmi maanaam rafet lool nu muy déggee doonoon koo xam ne moom alayhi salaatu wasalaam dafa am yërmande lool yërmandeem ji nag mag ak gone ñëpp ci bokkoon ñëpp la yërëmoon alayhi salaatu wasalaam ñun am na ñoo xam ne ku ñu rek dee nga waaw xée bala ñoo wax ndeysaan alayhi salaatu wasalaam nag rahmatan lil kabir wa saxir dafa yërëmoon ndaw ñi yërëm mag ñi nooy lool nooy mooy nit ku nit ku neex a jëflanteel ab jullit wërta naqaree jëflanteel lool am na ñoo xam ne loo séq ak ñoom rek sonn loo séq ak ñoom sonn bu dee embouteillage bi boo ko séqee ñoom sonn ndax buñ la jiitu woon sax xam ne da ngaa yàkkamti buñ yàkkamti woon sax dootuñu yàkkamti <laughs> am na ñoo xam ne bu ñu la jiitu woon xam ne yow mi seen ginnaaw da ngaa yàkkamti seenu naqaree jëflanteel tax na dootuñu yàkkamteeti waaw boo moytuwul ñuy raam ak a naan la defal ndànk looy telli telli te yow kat xam nga ne moom peut-être daa yàkkamti rek te yow dara nekku ci sa kanam boo neexee jëflanteel dëgg mooy nga si ñaale bàyyi ko mu dem jàmm ne ñooyu mooy ab jullit day neexa a day neex a jëflanteel yonent bi alayhi salaatu ci jikkoom yooyu da caa bokkoon bëgg lool baale baale yonent bi da koo bëggoon di baale da koo neex jëllale da koo neex waaw jëllale jëllale jëllale mooy nit day dégg loo war tontu waaye ngay bàyyi jamono jii ku ne ci kër te lépp loo dégg war koo tontu tontu ko doo noppalu ci tontonte ngay dëkk ci tontonte ngay dëkk de léeg-léeg booy xool estati whatsapp yi ci ngay xam sax euh, tolluwaayu nit ñi waaw ci ngay xam tolluwaayu nit ñi waaw nga enregistré numéro nit. fonkoon ko lool waaye mu estati rek nga découragé ne accam kon kii fii la toll kon kii fii la toll parce que ci la nit ñi di wane yi ñu am moo tax moytandiku ko baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku bëggoon jëllale la ku bëggoon di baale la ku sori woon ak naqari deret la ku sori woon aljafa mooy nit koo xamante ne dafa ñaaw ay wax dafa ñaaw ay wax ñaaw ay jëf waaye ku mënoon a muñ la ci jamonoy xat-xat yi nga xamante ne moom la nit ñi di dund lii lenn la ci jikko yi nga xamante ne bi ma waxee fi mu bokk ci aw askan wax mbokk ga ak delluwaay ga ak baax gañ am alxuraan ko tagg nag ndax jikko yi may wax yëpp da koo gën le ñëpp danaa ci delusi moo tax suñ borom ne ko jikko yaako ko gën le ñëpp wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi alayhi salaatu am ay tur yoo xam ne ab jullit da ko war a xam waaw yonent yàlla muhammad turam yi wa ca gën a siiw mooy Muhammad waaye dafa am yeneen i tur yu bari yoo xamante ne borom xam-xam yi danañ ci génnee danañ leeral maanaaya danañ ci indi lu bari boo demee ci seen téere ya boo demee ci saxiixul Buxaari ak muslim yëpp ci xadis boo xam ne Jubayr ibnu Mut'am moo ko nettali jële ko ci baayam nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne am naa juróomitur tur na am na juróomi moom yonent bi lii xamsatu asmaa in am naa juróomi tur na ma juróomi ñu ne ko ban ak ban la mu ne ana muhammadun man may muhammad wa ana ahmadu may ahmad wa ana almaaxi maay almaaxi alladi yamxu llahu bil kufra almaaxi man la maay ki nga xam ne ci man la sama borom di setale ak yé ak ak kéefër ana alxaashiru alladi yuxcharu nnaasu ala xadami maay xaasir eh, ci samay tur lay bokk ci sama tur la bokk man la ana al ay turi yonent bi la na yeneen tur yoo xam ne beneen riwaaya boo xam ne day wax ne man maay Muhammad maay Ahmad maay al muxaffa maay al aachiru maay nabiyu nabiyu tawbati maay nabiyu rahmati loolu ay turam la ahmadu eh, mahmud hamid yooyu yëpp dañ koy wax waaye muhammadu moo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ni turi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy séddale ñaari xaaj benn ci ñaari yi ñu ne da koo jagoo moom dong bokkulewu ko kenn ci yonent yi ñu ne lu mel ne juróomi turam yii ma njëkk a tudd yooyu ay turam la lu mel ne muhammad ak ahmad beneen xaaju ñaareel bi mënees na koo wooyee yeneen yonent lu mel ne rasulullah yonent yàlla Moussa man nga ko wax rasulullah yonent yàlla Ibrahima noonu lu mel ne shahid lu mel ne nazir lu mel ne nabiyu rahma yooyu ay tur la yoo xam ne mën na koo bokk yeneen yonent yi turam yooyu moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam tur wa ca gën a siiw mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tur woo xam ne. suñ boroom moo ko tànnal nga xam ne dañuy wax ne ismu maf'ul la min alhamdi nga xam day bàyyi ci baat bi nga xam ne mooy cant cant nga xam dafa làmboo tagg borom bi subhanahu wa taala sant ko làmboo bëgg ko làmboo màggal ko ak yëkkati ko loolu mooy aqiqatul hamd mu bokk na ci turi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit war naa jàng yii nga xam ne day tax mu gën koo bëgg gën koo fonk waaye teg ko ci kanamam ba nga xam ne du gis kenn ku dul moom loolu mooy turam yi wax naa la maamam yi am naa yu ma la indil ci jikkoom yi ñaare bu ñu nettali siira danañu nettali juddug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci diggante ñaar ñi ko jur di abdullahi ak ki nga xam ne mooy aminata amina bintu wahab ñaar ñii ñoo jur yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw baayam mooy abdallah yaayam mooy aminata ñun ñu naan ami <laughs> bu ñu yàlla may ñu dund ba suba yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba daa ñu wéyal suñu waxtaan wi ñu ak jagleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir waajale ko gàmmu gi ñaan mu may ñu ñu dund ba suba te weesu ko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 wa barakaatu.